barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mu jël faydu tiijaan jox ñu ñuy muqaddam yi kenn ku ne xam naa fi ay muqaddam yoo xam ne suñ oote woon seen bisi bopp seen programme yi bopp xajul ci université xajul ci université ba may wax nag di laajee sama bopp biir di leen laajee biir ne bépp jotaay boo xam ne dañ ko oote ci turbaay yu mel nii ñu ne dañuy fàttali ko ñu daan Cheikh Ibrahima ñu xam li ñu yëral ak liñ ci jëlee ñun ndax bépp teraanga bu ñu am ci moom la ko yàlla jaaral muy teraanga àddina muy bu àllaaxira moo si wër yu ñaama fii zaahiri wa baatini bépp jotaay ne moom lañ ko ootee moo xam fii la ci Dakar wala kenn ku loo mën a jàpp nañ ko bàyyi nga dem uy yi nga xam ne bàyyi nga uy yi uy si woo baram sec uy si woo keneen ko oote fee feneen ëllëg gàmmu Dakar gaa ngi di yow muy avril muy avril trois avril gàmmu googu gàmmu la boo xam ne bàyyi moo jàppoon date bi ne nañ koy ci mois d'avril mu ko génn fixé leen benn bés ci avril ndax ngeen seen yéen Dakar comme capital la ay nit ñu liggéeyee nangam nangam fi nekk dañ sàmmante ak masaraga waaye bu génn avril damay gis toujours la fay teew dama koy fay lool ci gàmmu boo xam ne bàyyi ko samp bu kër yi la xam ne dañ kii fay ko samp bu demee loolu te yéen wax toujours ne adversaire yi boo xam ne kenn amu ko ñun de mën nañoo tiitaroo ne bàyyi mooy suñu sëriñ waaye ndax bàyyi mën nañoo tiitaroo ñu en tant que état nañ jéem a soppi suñu comportement jéem a seer suñu bopp ci biir bàyyi loolu mu am njëriñ ci la ñuy am dund loo xam ne dund ak xaalis lay doon bàyyi képp koy kuy daaj yoon waroo am complexe kaw fenn ci àddina ne bàyyi mooy suñu kër bon nañ ñu ko jàpp ci soppi comportement yi ci leen ci jaxaas bi xool ñaar xool ba xaaral bi ndànk pour teew fii xam nañu loolu xam nañ ko naan bi lay ko anu moo ko yaatee ديبنا على أن يمضى الله في عمره سنوات سنوات طوال حتى يستكمل المسيرة التي ورثها على أسلافه عن سلفه صالح رضوان الله على الجميع. برهام باء وراء ألف ثم هاء ميم مجل فيض تيجان جخن نام ¡Gracias!